murit bu am jom ba mu bëggee ndam màggal ca lay jëm du xaw du ceetal yàlla na nu dégg ndigal te dégg màggal gi dëgg ba di ko màggal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi rekk moo teenu dëkk niiraanu dëgg murit ala mbooloom jullit yi fi teew asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu gan yu tedd yi nga xam ne tey bis bi ñu ko yàlla may moo ñu gënal bis yu jiitu woon te amuñu ko kon alhamdulillah ci turu lislaam bu ma neexee ci turu مولم مخدم تاريخة التيجانية المجاورة لهذا الشيخ الجليل شي ترويتم مولم طالبيب سرين توبا ديب شيخ ولا غاي لنين داخ شيخ ننكوك نيوم شي لنين يكتي كادي غاتي دي نوي نجكيل أولا سرين شيخ محمد الفاضل بوسو ميغا خامني شي سببام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 mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu di leen sant sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba itam leen tatagal sëriñ du Mbakke si ak ñi nga àndal ñépp di leen nuyu di leen siyaara tey jottali suñu nuyoo ak suñu siyaara ak suñu feddliku taalibe ci Cheikh Seydil Muxtaar mm-hmm.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 sëriñ saa mi bokk ak maam ah, mi bokk ak ah, sëñ bu bi ndeyam sëñ bu soobee ko jur sëñ bu soobe bokk ak maam jaara maam sëñ bu bokk maam jaara lépp muy mbokk waaye ni ko sëñ Abdu waxe mu bàyyi loolu lépp tànn ak taalibe waxal boppam ne moo tàllal loxoom jóge gede dox ak tànkam ba njaareem sering Afia yóbbu ko ci sëriñ Touba mu jébbalu boppam nee mu ma juróom at wala juróom-ñaar doxe naa ko sama tànk dem toog ak sëriñ Touba muy wax may dégg nit néew mag nee na nanga may wax muy dégg. Mm-hmm. ni ko sëriñ bi waxee it sëriñ bi defal ko ay traage yëkkati ay pis bu ñu piisu may lus jox ko mm-hmm. mu ànd ak sëriñ Afia moo ko fa mu ne ko boole sa dogal ak tubéy ak kaala li ci des nga may ko ko.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 béréb bii sëñ Abdou Khadre jóge na ngir ngi new kër sëñ xaar si ñëw yendu fi fanaan fi ba ci ëllëg mu doog a dem hmm. ci atam yu mujj rek daanaka sax laa di def xilaafa ñëw na ba tournée boobee ñuy wax ñëw na ba fii taxaw ci bunt bi wëlbati ko wax moom doog a dem béréb bii sëñ bi muy njëkk a dox xilaafaam gi yoonu mu njëkk tournée bi mu njëkk ñëwu fi waaye dafa daal di yónnee xaas nañ ko woo mu ñëw bi mu ñëwee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 ci bërëbam itam wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax euh, mu nekk ca loolee daal di jébbal boppam sëñ Modou Moustapha di ko lëggéeyal bu wér itam ndax dafa wax ne am naa ci bokk waaye nag bokkuma man taalibe laa sëriñ Tuubaa kon ko fi nekkal rek ci moom laay nekk ci la ñu digaloon itam daal nekk ki mag ci kër gi de su ma sañoon képp ku fi nekkal sëriñ Tuubaa na nga dem ci moom loolu la ñuy doxantu fii mu toll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 loolu lépp mooy li xalif bi doon ñaan gëndoo gi am na gën yu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu murit bu am jom baa mu bëggee ndam màggal ca lay jëm du xaw du ceetal yàlla na nu dégg ndigal te dégg màggal gi dëgg ba di ko màggal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi rekk moo tee nu dëkk niiraanu dëgg murit bi sant